Sëriñ Tuubaa nan doon nit yi Sëriñ Tuubaa ñu dugg yàlla am na solo lool waaye nan nan doon nit yi Sëriñ Tuubaa nan ko suñu borom defal moom mi def